boobu kenn mësu ci bind ak xasit mu ne ci yan financé la la gën a yaat mu jël bu si mooy bu ndax daan mooy bu seen bind na ko ñaari yoon ñaari yoon waaw xam nga sëñ Tuubaa moom dama ne fi ne xasida bu mu dul daane mën naa xool ndax sëñ Tuubaa gën ñëpp tax xasida yi amul lu mu yemal nag boo déggee sëñ Muntaxa naan lu mu gën a bëri gën a baax mooy xasida yi ñoom ñooy actualité boo xam ne dootul xew tey dama ne am na bis ci njëriñ xam nga sëñ Mayib Gueye sëñ Massamba da ngay dégg kuréel waa ko sëñ Massamba kuréel waa ko sëñ Massamba daaw kuréel waaye mu ngi ful kuréel waaw waaw waaw maam soxna Samba amul kuréel maanaam maanaam maanaam sëñ bi da ko wutoo fukki jànkat ak ñaar fukki jànkat ak ñaar yaa ngi ma Samba wutal na fukki jànkat ak ñaar yi mën a yëkkati xas bi sëñ ma Samba wut fukki jànkat ak ñaar bi mu ñëwee sëñ bi dafa wutoo mel ne bañkat mooy boo ko sant ko ci kër buntu kër gi nii day am beneen baras bu def làmp yi dañ ci wetam nii daan na ko ma sàmp ana fi lay ñëw na ñu koy si boobu sëñ bi tëdd xasida yi noonu li lay xamal ne xasida pas-pas moo koy jàng ak yitte ndax ñooñu dinañ ne suñu suñu sàmm indi ci Sëñ Tuubaa pourquoi ñii ne mun xasida yi waaye booba la leen di jàngaloo ci sëñ bi la nekk bi ñëwee sëñ bi ne ko ma sàmp nee feree yàlla bind na ci ñoom te tàmbalee ko déglu am yëpp yëpp yàlla bind ci yow léegi waaj booy waaj a jàng xasida sax suñu borom day bëgg yow boo jàng waaw wàccaay boo demee di jàpp tey di suyesal sa yére takk si digg mu dëgër wàccaay woowu léegi suñu borom day bëgg yow te jàpp jàng boobu kon boo jàngee ni muy mel Masamba mu ne ko Mbàkke mu ko yeneen bi bind ci ñoom Masamba mu ne ko Mbàkke mu ne ko neen fere yi man mii Amadou Mbàkke bind naa ci ñoom Masamba neen fere yi bu leen neexee bu leen naqaree àjjana nga si ci jariñ xam ne sëñ bi tënk xasida yi Masamba mu ne ko Mbàkke mu ne ko bisimilah gis bul xulóom tënk yi rek la sëñ bi tudd bu sëñ bi tënkee tudd bu tëddee tënk yi rek ñu daal alhamdulilah وثقت برب الهر ذي الجهد والنفير مع المصطفى والله بي مخلد صفي وثقت برب الهر ذي الجهد والنفير مع المصطفى والله بي مخلد صفي نلقى maa ngi si déggee mu ne ko ma sàmba sama digganteeg fere yi ci àddina xam nga dem moo tax ñun nag ñuy wax ay ay sawaraat yii da nga mel ni ku rëbb xeetu da ngay wax naka la waaye suñu tubaab ko xeetu ñun ndax moom dépassé na alaaka sama digganteeg ñi ci àddina la ko xam nga mu demee mu ne ko dee leen mbàkk mu ne ko sama digganteeg ñi ci àddina mu ngi mel ne ñetti néeg yoo dee na leen néeg bi ci digg bi def ñaar ñaari buntu saral jànkat yi di génn fii may génn fii ñu ko def ñoom ñu ko def nii hmm. suñu la sàmmee ne ko mbàkk ndax dafa kéem ñaar lay muy ko déedéet ak fu jànkat mën a nekk ci àddina fii ba Sadio taxaw dugal naa ko ci fukk ak ñaar yi loolu fu mu ko xasee tuuti. alhamdulilah. kon noonu la meloon ci daag noonu la meloon ci xasida yi Masamba mu ne ko Mbàkke jàng nañ fi muqaddama ba ab i toronta ba fakkutal ko la yaa xayra mursalin xale i saratun di boo ajjara miskal sëñ bi dafa it ñaar loxo yi ren doo génn ba mu génnee sëñ Samba ne ko ba Samba mu ne ko Mbacke mu ne ko ana buntu kër sëñ xoolal sëñ Tuubaa daanu ab diiram ba buntu këram bii xam ne di ko daaneel ab diiram loolu mu doon wax la waa ji doon naan xasida bu mënut daaneel ak bari da ko wax kii bi xoolal bu baaye néew lu weddi hmm? bi ci des fu mu koy yoonu murit mooy li nga xam ne a ñàkk ci benn jotaay mënut a ñàkk ci lenn soxla daaj bu ne daaj bu ne génn na daaj boo xalaat ci àddina te daaj bi sëñ Tuubaa nekk si gën ba nga génn ko di yow yaa ko fente maam sëñ bi da koo jaaree ci yow ko fent ndax leneen xamal ne yow fent ko lépp lu mën a daal ay malaaka mën a bindoo yéen a téye xamal ne loolu bii fi doom am yu teg lu la jox dugub bi alif bu tuuti lu mu doon. alif alif bu tuuti lu mu doon. boo boolee ñi mat ñi mat alif lu mu doon. boo boolee tuuti ci arab lu mu doon am. du ko léegi am wàllu bu yàlla tuuti boo ko ñaan doon ñaan danaa la am rek nga gis ni ci sëñ bi ñaan wax ko ngeen sama woy wi heure bi yow yaakaar yow aji tedd gi yàlla ni ko may nam mu ne ko waxaat nga bii naa ji maa yoroo li nga bëgg mooy képp ku jàng xasida gi lu mu dee dee yoroo laaj bi mu am na ko sax xoolal fi ne képp ku jàng ko fatu sa ñaari waajur mucc nañ te taxawaay bi ci loolu mu ne su ko fee sëñ bi boo jëlantee xasida euh, sëñ bi mbaar ko wutul mbaar li muy nekk njëriñ wax nañ ne boo masaan ñëw di ko jàmbat ay ay ñàkk wala balaa wala tumuraanke sëñ bi danaan yëpp dem na sama téere su ma ko yëkkatee tos bi bu ma ko indee sëñ bi du ko jàngee danaan ko rochee daan ne raisin d' eau daal di daal di ko jàpp. ah yëpp sax. bari sëñ bi jàpp bari sëñ bi. xoolal tos bi gii ñuy wax si njiit si njiit si njiit am na sax bu ko jiitu woon parti bu ñuy wax Magout Magout moo jiitu service bii du ko sëñ bi bind laaj na onze ans de vote arabe donc sëñ bi teel ñuy am onze ans waaw si di bii ñu ñàkk ñu ngi ko waree taalif sëñ naa jënd dañuy tëb na ko sa borom neex bit na ci yow ñetti moo xam ne xas léegi ngay waaj a taalif boo njëkk a tudd ak turam ci xas léegi mu jël jëmmi kooku ngay la jël dara jël kooku ci xas léegi xam nga sëñ bi duñu am doom

kii damaa defu ko gis nañu fas yëpp naa ko sama kàddu laa ko xoolal loolu. damir ji donte ci sëñ Tuubaa la jëm waaye képp ku jàng si nit yi boo fàttoo yàlla moo nekk si nga tëdd bi baax. sëñ Tuubaa nee na képp ku jàng si nit yi suuf bu ko rek. fi xam ne yéen maanaam si nit boo ko ñaan suuf du la rek. xoolal xaaral nit ci sëñ bi ñaar. cat ayu seen ayu tàmm. catu lan bi catu gën ko pexe noonu ah ram lépp sëñ bi ñaan na ko ci nga xam ne si nit doon na kaaraay hmm? nga xool tey sëñ Abdoulaye dem ñu nekk njëriñ nga xam ne moom nee na boo jàng si di malaay yi dañ lay xamee yàlla da lay teg xel jàngat si di noonu la nga ci yàlla malaay yi dañ koy xamee suñu doon dafa teg xel nga xam ne

xam ne loolu lépp ci biir lépp. nga xam ne boo ñëwee sax ci daaj yi ñu koy daaj boo mën a jënd xës léegi waaye ci ci wàllu benn daaj yi ñu koy daaj ay sim soit yo xeet daaj yi ñu koy neex nga xam ne daaj yi ay bàyyi daam yoo xeet daaj yooyu nga xam ne doo ko ci fekk ci àdduna yàlla ذي سهيد وإسماعيل يداه وفي سليمان يونس اليسري وزكريا غير يعقوب يداه وآمنا هدى وسلم قالوا يداه ويوسف وبإسماعيل وغيرهم من أنبياء ورسل الله يداه عليكم رمس dara lépp programme moo tax amul amul lenn lu mu màcc ci li ñuy jàngalee ak cëriñ maanaam ñii dafa dafa bokk ñi ko war a jàng ak cëriñ bu mu ko doon jàng. ak sëriñ. waaw ak cëriñ mooy si. jàngal ni ñuy doonee sëriñ. waaw ni ñuy doonee sëriñ. xam ga sëriñ ni ñu ko jàppee ak la mu doon dafa bokk. dama ko wax ci bëccëg néew. dama ne ko yow am na looy wax ci sa njabootu am na fu ñu toll ci suñu tubaab foo xam sa waxtaan waaye am na loo xam ne ci suñu li may def ci ñoom ci sa jëmm la nekk. ndeysaan. nekkutul ci li muy wax. ci jëmm la nekk nekkutul wax li muy wax. waaw bokk na ci li ma gën a màcc ci moom te boo doon wër ñi mu daal ci seen diggante ak seen i taal bi bëri du ma ne amul bàyyi bëri mooy tàbbi ci sa biir taal bi la nga leen sant da nga def fi ne sëriñ si bëri loolu dañ doon tudd yàq maam jël micro lii fi di yàq sëriñ si bëri Tuubaa toog na ci njëriñ nopp na ci njëriñ sëñ bi nopp jot naa kenn ku ne naan defal sëñ bi nopp kenn ku ne naan sa morom noppal sëñ bi wut nopp nopp ko maam aw nit soo leen bëggee def da ngay tànn ci seen biir moo tax mu ne ko am na image yu suñ seer di wax ne sa jëmm la mooy photo aussi boobu nga gis suñ seer dugg ci biir dong yi toog ci bidaan bi dong yi yóbbu ko mënul ci bidaan nga xam ne bopp suñ seer moo lay defal ne gis sëñ bi ma ne ko defin woowu daf may daf may remarqué ci nii nga def dama dama dama ci bàyyi ci nii nga def moo tax ma ne ko sëriñ si bu doon bu doon bu fekkoon ne aadi nañu wax aadi nañu am jàng yaay professeur sëriñ si te li nga leen di jàngal mooy ni nga doon a gën ab sëriñ du du du buur ak jàmm buur ak jàmm yàlla ñu ko ab sëriñ du ab buur ak jàmm buur ak jàmm yàlla ñu ko dama ne leen ba ci xës yi ñuy jàng murid bi sax war bi muy jàng ci xës di i addiya Sëñ Tuubaa war na ko dépassé war naa yegg ci foofa nag yitteem yëpp mooy saa bu xëyee mu fexe ba gis koo xam ne fépp nit ñi ci xës yi mu fépp ko bi loolu mooy dëgg-dëgg yëf nga xam dégg ma message bi mooy maam dafa bëgg ay sëñ Kosso yu mag sëñ Kosso yi bëggul mel bëggut a nekk sëñ Kosso moom jàpp saa bu ñëwee rek muy sëñ Kosso rek ñu siyaar ko gënal ko dem déedéet moom dafa bëgg ay sëñ Kosso yu mag la moom loolu loolu lay wut loolu kenn ku ne yaa ngi jëmmal sa bopp maam li ciy jëmmale sa bopp mooy fa nga dëkk gox ba nga dëkk mooy defee am ñu fa dëkk pourtant na ngay def ak ñi fa dëkk moom jàngal na ko mooy ni ni muy defee ak yow rek loolu rek la jàpp loolu te pourtant. sax fan yii man daanaka ko teg si mën a waxtaan sax dinaa ko maa ngi ci waxtaan yi waxtaan yi maa maa ngi doon yóbbu foofu ne maanaam ni ñuy def ñun ba kenn ku ne fexe jëmmal sa sëriñ fa nga nekk ginnaaw bi nga jëlee ci fa nga nekkoon taq taq yaa ngi nekkoon ak ay bi yow nooy def nag li ne nit compliqué yoroo nit xanaa xam ne bokk na ci sëriñ bi gën a tëlee jàngale ci at mooy sëriñ bu la gën a mu compliqué moo la gën a tëlee sëriñ bu la sëriñ daal di ko daan ne boo ne ko boo ne ko bañ ne ko jiite aw nit naan leen yàlla nee na yonent bi nee na suñu tubaab na nga yëg ne sëñ dina toog bis mbooloo mi toog muy wax am ci seen activité dañuy yàqatu dañuy jiw waaw waaye nag dañoo adhéré moo tax hmm? waaye bis bu bis bis message bi ñu lancé suñu ko liiree dëgg dëgg dëgg dëgg te appliqué ne bu suñ ñuy waxati dañuy bëgg mu fanaan ci li muy wax xam nu muy def ba am sëriñ su bëri ci biir ñi yor li ñu wax sànq ne tubaab yi nee na sëriñ tubaab jóge na fi waaye sëriñ tubaab yi bëri na fi bëri loolu mooy yoon loolu nag kenn ku ne yaa ngi koy tàmbalee ci kër gi nga dëkk ak yëpp gox ba ngay yow mooy sa yitte yëpp vraiment nit ñëpp a mar sëriñ tubaab sëriñ tubaab ñëpp a jiiroo mar tubaab yi sax ma am na lu mar ci sëñ bu ñu gisee ko leen ci naan ñu ni ñàkk ñàkk doon sëñ bi am ko sët seytaan bi féete suuf sa bopp féete kaw ko màcc seen tool malgré ñaare ci xew gis ku la ci mën koo xamante ni mënut a def pexe ba nga yëpp yëpp ñun defee ñun pexe yëpp mooy ñu fexe ba bënn ay teen ku màcc seen xam ne wóor nañu ne li ñuy yëg moom moom mënu ko ndax moo ko xamal moo ci taal foofu foofu la liggéey ba ca des it mooy euh, ñu fexe defar maanaam roo gis nga roo roo mooy li am solo ci biir roo ak bakkan doon naa ko waxtaan ci safara dama ne leen fii ne ñi bëgg Sëñ Tuubaa ci bakkan dama ñu ko bëgg ci ruu sax bokkuñu ay ruus ki bëgg Sëñ Tuubaa ci bakkan tey bu sëñ ñu taxaa ñu tëdd day yóoru lu yaakaar ci may fa toog moom defoon moom ak vidéo génn ne sëñ bi am na li ma jaare moom waaye ki ko bëgg ci moom mu toog danaan teg bi toog mu raam tànk nuyu ko te pourtant man ñi beneen sëñ bi yàq connexion am na ko mu nekk bi avant mu taal bi taal connexion bi bakkan bi amoon la sëñ bi fay ba door a taal bi sëñ bi nekk Tuubaa ji mag ñi daan réer ci àll xam lu leen di guidé bu julli jotee bi bi ne Allah akbar foo mën a toll ci boobu du kàddu yii ñuy wax kàddu wu boo ma seetee moom sëñ bi jëlee na ko condition ba a nekk ci àdduna bi sëñ Tuubaa la ñu dégg loolu mu yëf bakkan bëriwul bakkan yàgg kooku mooy li am doole fi ne dugal ci piste orange dugal ci piste ñëpp am condition nga taal mooy yëpp bu ci ëpp doole nga tuuti lii sama bakkan day fekk du ko fonctionné te loolu dana dana cee gën a gaaw tudd yàlla comme ni ngeen di def ak gànn xasida dara dana ko cee te moom ci loolu lay tàkkatee ci loolu lay wootee kon man mission mission man damay wax ne suñ ko soog ci sama xel mu gàtt maanaam nit ku maanaam dara toll foo xam ne man ci li ma ko gisee man damay déggante na téléphone yenn saa yi dañuy damay wax ci yoo xam ne du bokk sa yéen xam-xam. <laughs> ci ne lépp lu ma liir ci xam-xam dama naan kàttan sama bopp. li ma gën a li ma gën a yëngu ci àdduna moo lool bi ma koy woote. te nag ñun njëriñ lañ jàngee dañ ko lay njëriñ fi ne Sëñ Tuubaa doo ko ñu jokkati waaye nag moom bokk na ci li ma gën a yëm li ma gën a yëm mooy bëri na ci sëñ si ñoo xam ne woo leen jot leen nii jot leen rek def def te pourtant loolu mën nañoo bañ a jàpp mën nañoo bañ a am benn activité bu leen tax mais li ma gën a yëm ci sëñ bi sax mooy saa dépassé wut maanaam mbirum ab mbirum diggante ab sëriñ ak taal ci kaw yi li li li muy doxalee ba seetlu xam ko da nga naan kii am fu mu jëmbat am fu mu bëgg am na lu ko tax a jóg maam dajale nit ñi nii rek déedéet tax ko jóg am na leneen lu ko tax a jóg loo xam ne loolu ci kanam lay doon te yooyu nag yooyu ci jamono de te façon bii muy def la sëriñ Tuubaa yaroon bi ci njëkk mooy xam-xam dañ cee war a tabe xam-xam tabe rek lay def. sëñ Cheikh Mbacke ngay def dafa am mos a ñëw ci moom bu ko laaj am na sax sëñ Cheikh moom bu yëkkati benn yi naka ko jël sëñ Cheikh na ko doon koy jënd mu ne ko déedéet jënd mu ko de dama la ko bëgg a jox sëñ Cheikh na bu fekkee da nga ko jënd day woo dégg ndax yàlla ñu ko jox jaay yàlla ñu ko jox jaay ndax noonu lay firi rek biram dañ ne dama foofu la jëkk loo ko laaj ci moom xam ba ci mbirum yàlla yii nga xam ne dara gën koo wóor fi mu ne ci jamono dara duñ ko daas ci jamono li mu xam ci mbirum tur yàlla li koy tur yàlla li ko li ko ci yàlla xam nga maanaam man dama dalee jax soo kilifa léegi musuma gis ku ci xam lu toll nii am parce que yenn saa yi sax moo ko la wax ne man maanaam bu ko waxee pare maanaam su dee ren day topp day ren day ndax dama yëngu ci moom. man damaa bëgg ngeen fonkaat mu fonkaat bu baax. ay jéego bu baax. na góor yàlla yi fi ñëw jaay ñu jox addi sëriñ ko sa baay bu wéy géeram ñu ko war a teral te yàlla rek tax képp ku nekk ci dàll da nga ñukk ci li nga yor nga jox addi sëriñ ko mag bi woyal sëriñ Tuuba sëriñ Tuuba addee sëriñ Basiru Mbacke. ñu la tudd guddi keroog juróom-ñeenti bi dara ñu lool ndax jàpp ne da nga leen di waaye man dafa mel ne dafa nekk ci waxtaan wax ne dafa amal importance ñi fi taxawaay boo xamante ne bii man dafa am lu ma ci xam dafa am lu ma ci xam lu ma xam sama diggante moom dafa am lu ma ci xam lii nag maa ko doon waxtaane waaye nag am na lu ma ci xam lu bari bokk na ci bu ma kilifa joxe benn secret secret su ma waxoon ndax wér naa mbir barke Sëriñ Tuubaa mu koy waxtaan bu ma ko waxee danaa ma loolu wér su wérul danaa ma wérul te bu ne maa wérul

bëgg nga ñëw dugg kàlla kàlla est-ce que yaa ngi ah. kon loolu nag dem man maa mën a jëriñ man maa mën a nekk njëriñ seen bosom yi nekk Ndakaaru may jëriñ ci moom asamaan yi ñu dëkk barke sëñ Tuubaa te maa ngi jëriñ ci moom baax baax ndax man sama yitte yëpp mooy ngërëmal sëñ Tuubaa ah defal sama jëm est-ce que yaa ngi am moo mën a fexe ba defoo ba am ngërëmal ba mën a sax ci sëñ Tuubaa li koy woote daa bëri waaye dafa jëm bëri waaw ah. te àddina noonu ko yàlla bindee fi na foo fekk ay original am na ay fo ay copie mënoo leen a xam original bi waaye soo ci soo ci dana original foo gis foo da nga xam ne kii foo da nga xam ne original ndax ko am na ko wax c'est-à-dire man la ko man la ko man laa jàpp waaye di nga xam ne kii sëriñ bi matub sëriñ ak ak ak ak ak ak lan am na beneen bu ci teg dama ko fàtte daan ne soxna kat itam ko tànn da ngaa yaakaar ci mu jar bu baax sëriñ matub sëriñ da ngaa yaakaar ci mu yóbbu ci yàlla te suñu tubaab nee na ñaari gën a yóbbu ci te bees bi gën a jafe hmm? ah dëkkandoo hmm? kon noonu gënoo bég ci moom di wax ci moom lii ndax. boo koy sant da ngay wax li tax li mu la def ba tax nga ko sant maam nit woyof ci jëmmam ba ko neexoon tey su ma ko doon woo at bi yëpp benn yoon laa ko ci jox wala ay asan wala li mu yor man na soxla su ma amee lu ma ko ciy laaj. boo gisoon ku la ci nga jox ko ñaar fukki junni sax dana la jàll nga wuti a fukki junni ngir mu tontu la ci ngir mu nga xam importance bi ni ko laaj dina mën a jëriñ nga ci mën a jëriñ nga mën koo waxtaan mu waxal la tojal nga lépp ba mu mi ngi Dakar maa ngi mi ngi Dakar maa ngi jëriñ waaye maa ngi jëriñ ci moom la. maa ngi jëriñ ci moom bu baax a baax bu yàgg rek suñu baax am na lu moo doon góorgóorlu suñu baax li ma ko war a jëriñ képp baal si biir ku ma ko war a jëriñ ma doon dugg moom. it day benn secret suñu baax ba tey su ma la jëlee ci moom daal ku ma ko laaj ci njëriñ dina nekk maa ngi sama xel sëñ bi dañuy dëkk bi gisuma ko. turist sax boo ko tuddee nit ñi dañ naan lool di yaram. bu dee waaye boo jëlee nii mën na ko nii kat sëñ bi soxna ko am waaye bu baax moom dina ko xam ne xam nga moom. sëñ bi waaw jërëjëf jërëjëf sëñ bi jërëjëf dañuy dañuy seede rek si li ngay wax ndax seede dafa baax te doo toll si jamono cant te lu lu bari war a ñoo seen ndax mbir yi coow nañ yaakaar naa ne am na ñoo xam jotaay boobee ñu ngi ko sëriñ bi jiitu yàlla mais jamono jii day dem sax ba jàpp ne nit wala nit yàlla wala maskaan day jàpp ne amul bis mu mën a waxtaan. day dem ba jàpp ndax ñu koy ñu ñu suñu borom defal te day mel ni maanaam ñu am yitte boobu ba toll foofu ba mu see mën a saafara moom daf mel ne ñaareel bi ñun ñi ànd nañoo moom ba ba ba Tourbac Tourbac ba ñu gënee bay bay jaar yan ba yow ñu la ay leer loolu ba foofu ba ñu demee moom Serigne bi dañoo fot suba ba ba ñu wàññi bu gis laa ne bëri si génn bi si bay bay jaar bay bay jaar bu ne jamono si si bay jaar nga xam ne sëñ Baye Diakhaté da kaa ñëw si marché Ibrahima Fall mu dem di ko di ko wax comme sëñ Baye Diakhaté di ko wax ñun marché Ibrahima Fall ñu ko demee Baye Diakhaté naan moom si boppam ba mu génnee ñu ñu dugg si néeg ziar ko di saafonte moom di dañoo di waxtaan ba yàgg mbaa ci jàppale ko ne te loolu li lay wax ni yaakaar naa ne war naa ne ay ay jàppale 13 jàppale 14 jàppale ñaata na daal ma fàttali ak ñun maa xamul ne kii ngeen àndal ñu bokkul xew yéen fukki at yi ñu baax. dañ lay jaar dañ wax dañ lay jaar moom wax kon li ngay wax ku firnde li ngay wax moo tax leneen ci jox ndeysaan suñu gaar bi ma wusi bi léegi déet si liggéey parce que gis nga boo yoroon milliard adduna bi yëpp kooku rek sëñ bi dafa am wax te amoo passé ci Sëriñ Tuubaa day mën di seetlu waaye passé bi bokk naa la ñu joxe ak gërëm bu sëriñ sëriñ bi gërëm nga mën di gis ngir dafa wax ak man ba pare ba muy jënd naan trois mille ñaar yoon woon na ñu ñëw dégg ñu wax ne seen saal bi ñu joxoon kooku taal bi ne ma ñaar si ñaar loolu ñaan ñaan sol sama kii ba pare sol sama sama bopp mu ne ma solal ma sol ba pare mu ne ma mu ne ma jëlaat la nga ñaan sëñ bi dana def gërëm ñu gërëm la ay yoon yoo xam ne boo ko jël gërëm lool jëlee si réew mi wax ñaari yoon. vraiment sax dem ba yegg si moom am na seen isaani tool heure bu ko laalee ñaar si ñaar si fasaat góorgóorlu ñu loolu ñu gis ko fay. mooy gën a am woo mu ñëw ñu ma toog nga ñaan. ma toogaat ñaan mënu ma baax loolu ñun ñun ñun ñu ngi rafet ndax li ma ko wax dama ne ko si kaar ñun de wallaahi na si ma ma toogoon si kanam sëñ bi Daxa li ma yëg si dara soog yàlla daa ko seen tool li ma yëg si kanamu ji buñ ma moom buñ ma ubbi yoon léegi mu sëñ bi Daxa da dana soog ba mu fa toogee li ma yëg ci fi mu fi mu toll du soog dara du soog ndax sëñ bi dañoo naxu sëñ bi dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo dimbali ñu ne dañuy dimbali ba dimbali ñoo xamante sax yow bu koy def seen lëkkal lëkkal nañu ba am na loo xam ne sax mënatuñu. waaw wala loolu day ñëw sax ba weesu ba ñu xam lan moo ci dimbali. di sëñ bi quoi mooy li ngay wax léegi nii moom ñëpp day dimbali dama ne moom jikkooy boppam rek jikkooy boppam mu boo ko dee boo ko dee looy si jikkooy boppam sax daanaka. da ngay xam ne sëñ bi jàmbaar maanaam tey yow yow waxumala waaye ñu lay woo chaque jour dina jot rek am na mbokku taalibe boo xamante ne am na sëriñ bu mat sëriñ si saa yi rek lay wax am na sëriñ bu mat sëriñ moo tax ba ko ordum dëkkee foog mu dëkkee mu ngi doon dëkkee si route nationale waaye ay quatre heures du matin xelam daju kenn duñu woo sëriñ ma woowoon dafa woo sëñ bi quarante et un yoon sëñ bi sëñ bi sëñ bi déplacé nga xam ne sëñ bi woo taalibe boo xam ne day ni ko topp tool ba a ba ba toog jóge foofu ñun am nañu semence quatre heures du matin la ko dal ñu ne quarante sëñ bi xel sëñ bi rek la dal te war naa gis ñoom ñii sëriñ bi day jékki-jékki suñu borom def si ñoom seen jëmm yi ndax liggéey ñuy liggéey seen tubaab dañuy jékki seen tubaab def def si seen jëmm yi loo xamante ni du nekk du nekk ñoom bu leen di def sax du bëri ñoom bu leen loolu di def ñoom sax du bëri ndax ku seen tubaab toll taal bi sax day jékki-jékki bu bu bu am na ko ni du jikko ni moo li ñu wax ci nit rek ci jël la def ci si nit waaw moo tax ñu ñu ñu sangaat bu wér ñu ci boole ci ñu mel ndax dafa am kenn wax naa ko yaakaar naa yenn yaara waxtaan nañ si ma ne ko sëriñ bi de ñoom dañoo bokk si kenn yi nga xamante ne équipe la boo xamante ne ñoo yar kennam gis nga fi mu ne nii yoonu Mouride dañuy béy béy béy béy béy équipe boobu gis nga tey équipe boobu même tey jamono jii moo am. appel vidéo vidéo conférence am te loolu zaayir gis nga ñi yor tenoo yi yoon moo xam suñu borom Mbàkke ma nekk Daaru Muxti moo xam kenn ki nekk Touba moo xam ka ka nekk Dakar moo xam ka nekk Mbodj si ko ci doon bu bokkee si tenoo yi nga xam ñoo war a téye liggéey sëriñ si jamono jooju ñooñee fu ñu nekk dañuy yëngati te bu si kenn yàlla na yéeg bu si kenn bawoo kenn da koy remplacer. moo tax sëriñ bi doon ñu wax dañu gës nañu tey jii demoon sax liggéey bi ñu liggéey si bu demoon sax dina dellu si léegi loolu lu ñu siy jàngal mooy équipe bu sëriñ bi waaj moom da see bokk moom ànd ak moom rek ñu koy wax waaye dañu koo wan ñoom ñii dañ see bokk bokk mën a dara bokk si bokk si sélection sëriñ Sall Serigne Sam sélectionneur nga war a bokk si ñu koy liggéey rek loolu du ay ay ay caaxaan bokk si sélection Serigne Sam te ñoom ñi dañoo bokk si ñoom ba tax na moom li ñu wax naan Serigne bi bu ñu doon formé ay Serigne moom dafa war a bokk si li nga xam ne day formé ay Serigne yi ñu defar ay nit loolu ay nit ñu am xam-xam nga ko ay nit ñu am xam-xam ñu la tudd guddi góor juróom-ñeenti bi naan moom ñu doon ndax jàpp na da nga leen waaye man dafa mel ne dafa nekk ci waxtaan wax ne dafa amal importance ñi fi ne amal importance addina xam nga li wax mooy mu ne fexe ba jëriñ ndax boo xamante ne bii man dafa am lu ma ci xam dafa am lu ma ci xam dama xam sama diggante moom dafa am lu ma ci xam lii nag maa ko doon waxtaan waaye nag am na lu ma ci xam lu bari bokk na ci bu ma kilifa joxee benn secret secret su ma waxoon ndax wér naa wér maa ngi siy turam mu koy wax bu ma ko waxee dinaa ko loolu wér su wérul danaa ma wérul te bu ni maa wérul du ma wérul yëpp

bëgg nga ñëw dugg alakaari est-ce que yaa ngi dégg ah. kon loolu nag dem man maa mën a jëriñ man maa mën a nekk njëriñ seen bosom yi nekk Dakar may jëriñ ci moom asamaan jëriñ la baax na suuf te maa ngi jëriñ ci moom baax bu baax ndax man sama yitte yëpp mooy ngërëmal suñu Tuubaa ah defal sama jëm est-ce que yaa ngi am nu ma mën a fexe ba defoo ba am ngërëmal ba mën a sax ci suñu Tuubaa te loolu yëngu ndax li koy woote daa bëri waaye dafa jëm daa bëri li koy woote daa bëri waaye dafa jëm bëri waaw te àddina noonu la ko yàlla bindee fii nag foo fekk ay original am na ay foofu ay copie mënoo leen a xam original bi waaye sonn ci sonn ci am na original foo gis foofu da nga xam ne kii foofu la da nga xam ne original. suñ surtout sëriñ napp sëriñ dafa yëngu sëñ Tuubaa danaa wax ne ñett yii dañ koy tàmm soxna ak sëriñ napp sëriñ ak ak ak ak ak ñoom am na beneen bu ci teg dama ko fàtte daan ne soxna kat dañ ko tànn da ngaa yaakaar ni jarul baax sëriñ napp sëriñ da ngaa yaakaar ni yóbbu ci yàlla te sëñ Tuubaa nee na ñaar yi dana yóbbu ci te bees na gën a jafe hmm? ak dëkkandoo ci moom lii ndax ab nit ki boo sant da ngay wax li tax sant li ma def ba tax nga ko sant maam nit woy ci jëmbam ba ko tey su ma ko doon woo at bi yëpp benn yoon naa ko ñaar ñoo xam ne yow boobu seen bu la ci tontu nga jox ko ñaar fukki junni sax dana la jàng nga wuti ñaar fukki junni ngir mu tontu la ci ngir mu tontu nga xam importance bi ñu ko laaj li nga mën a jëriñ ak li nga mën a jëriñ nga mën koo waxee mu waxal la tojal la lépp ba mu leer la waxal la fi ngay aw loolu loolu loolu loolu loolu loolu nag mënu ko fay mënu ko fay te suñ ko man bi sant bu baax te damaa jëriñ ci moom. mi ngi Dakar maa ngi mi ngi Dakar maa ngi jëriñ waaye maa ngi jëriñ ci moom ak si quoi maa ngi jëriñ ci moom bu baax a baax yàlla rek suñu baax am na lu ma doon góorgóorlu suñu baax li ma ko war a jëriñ yëpp ak si quoi ku ma ko laaj jëriñ ma doon góorgóorlu nit benn benn secret suñu baax ba tey su ma la jëriñ ci moom daal ku ma ko laaj ci njëriñ dina def ko baax na sax dina def ko seen nawet bi foofu la war ko sëñ bi dañuy dëkk bi gis moom tur sax boo ko tuddee nit ñi dañ naan naaw li ngay wax mu ne waaye foo jëlee bi ma ne ko nii kat sëñ ko sama ko envoyé mu ne waa moom day yaakaar naa ne envoyé moom. sëñ Mor jërëjëf jërëjëf sëñ Mor jërëjëf dañuy dañuy seede rek si li ngay wax ndax seede dafa baax dafa toll si jamono cant te lu lu bari war a a wax sëñ ndax mbir yi coow nañ yaakaar naa ne am na ñoo xam jotaay boobee ñu ngi ko sëñ bi ji ci yàlla mais jamono ji day dem sax ba jàpp ne bu dee wala tur yàlla wala maskaan day jàpp ne amul bis mu mën a waxtaan day dem ba jàpp ndax ñu koy ñu ñu ñu suñu borom defal day day maanaam ñu am yitte boobu boo toll foofu bu mu see gën a saafoonte moom daf ñaan dafa def ñaareel bi ñun ñii ànd nañu moom ba ba ba Koumba Koumba bañ ko ne bay bay jaax ñam da nga yokk la ay leer doon koo defal ngërëm sëriñ ba dem nañ ba foofu bañ demee moom sëriñ bi dañoo fot suba ba ba ba yaakaar naa ba ba ñu wàññi gis laa di sëriñ bi ne bëri génn si génn si si néeg bi si bay bay jaax bay bay jaax bu fekkee ne jamono si si bay jaax nga xam ne sëñ Baye Diakhaté da kaa ñëw si marché Ibrahima Fall mu dem di ko wax comme sëñ Baye Diakhaté wax ñun marché Ibrahima Fall ñu ko demee Baye Diakhaté moom si boppam ba mu génnee ci ñu dugg si néeg ziar ko di saafonte moom di dañoo di waxtaan ba yàlla ñu ne mbaa ci jàppale ñu ko ne loolu ci lay wax yaakaar naa ne war naa ne ay ay quatre vingt treize quatre vingt quatorze vingt deux quatre vingt neuf ñaata na daal ma fàttali ak mooy naa xamu ne kii ngeen àndal ñu bokkal xew ñëpp ñëpp ñu ne ba. dañ lay jaar rek wax dañ lay jaar moom wax kon li ngay wax ku firndeel li ngay wax rek moo tax leneen ci jox ndeysaan suñu gaar bi ma wusi bi léegi dëj si liggéey parce que mooy mooy tax gis nga boo yoroon milliard adduna bi yëpp kooku la ñu seen kii dafa wax ndax amoo passé ci Serigne Touba day mën di seetlu waaye passé bi mbokku daal la ñu joxe ak gërëm bu Serigne Serigne bi gërëm yóbbu ñu ngi si biir dafa wax ak man ba pare ba muy génn naan ko am ñaar yoon woon na ñu ma ñëwee dégg ñu wax ne seen saal bi ñu joxoon mbokku daal bi nee ma ñaar si dëkk bi aussi ñaar daal ma ñaan si sol sama kii ba pare sol sama sama bopp ma sol ma sol ba pare ma ne ma jëlaat ma ñaan sëñ bi dana def gërëm bu gërëm la ay yoon yoon soxla ma ko jël gërëm lool jël fi wax ñaari yoon ñaama sax dem ba yegg si ma sëñ bi Sall bu ko laalatee naan si naan si fasaat góorgóorlu ñun loolu ko fay mooy génn ak woo mu ñëw mu ma toog nga ñaan moo toogaan ñaan mënu ma baax loolu ñun ñu ñu ñu ndax li ma ko wax dama ne ko si kaar ñun de war naa ñu ma ma toogoon si kanam si biir daxaar li ma yëg fii daal di soog yàlla rek laa ko sant li mu seen daxaar mu fa toogee li ma mu mu toll du du si soog ndax sëriñ bi dañoo naxu sëñ bi dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo dimbalee lu ne dañuy dimbalee ba dimbalee ñoo xamante sax yow bu koy def yow lu koy dugg nañu ba am na loo xam ne sax mënatuñu. waaw wala loolu day ñëw sax ba wees ba ñu xam lan moo ci dimbali. gis nañu li wax mooy li ngay wax léegi nii moom ñëpp ngay dimbali dama ne moom jikkooy boppam rek jikkooy boppam mu boo ko dee boo ko delloo si jikkooy boppam sax daanaka. da ngay xam ne sëñ bi jàmbaar maanaam tey yow yow waxumal dara waaye ñu lay woo chaque jour di la jot rek du jafe tey am na mbokku taalibe bi boo xamante ne ànd ak sëriñ bu mat sëriñ si saa yi rek lay wax ànd ak sëriñ bu mat sëriñ moo tax ba ko oto mbëkkee fa mu ko mbëkkee mu ngi doon mbëkkee si route nationale waaye ay quatre heures du matin xelam dajul kenn duñu woo sëriñ su ma woo ñëw sëñ bi sëñ bi sëñ bi déplacé ndax sëñ bi moom mujjee woo taalibe boo xam ne day liggéey chapeau ñu bokk nañ ko topp tool ba ba ba ba toog jóge foofu ñu am ñu sama pratiquement nee la ko daal ñu ne carte service xelam sëñ bi rek la te loolu saa yi képp ñoom jàppante ak ñun ñëpp jaww ji sànq damay wax ne Serigne Touba du nit war naa la si ñoom ñii Serigne bi day jékki-jékki suñu borom def si ñoom seen jëm yi ndax liggéey bi ñuy liggéey Serigne Touba day jékki Serigne Touba def def si seen jëm yi loo xamante ni du nekk du nekk gis nit ba ñoom bu leen di def sax du ñoom bu leen loolu di def ñoom sax du ndax ku Serigne Touba toll taal bi sax day jékki-jékki bu bu bu bu bu bu dund Serigne am day jékki-jékki am yëg-yëg boo xamante ne yëg-yëg na ko ni du di koy moo tax Sëriñ Tuubaa wax ci nit rek ci njël la defu ci nit waaw moo tax ñu ñu ñu santaat bu wér ñu ñu boole ci nit mel wax naa ko yaakaar naa yenn yaakaar waxtaan nañ si ma ne ko sëriñ bi de ñoom dina bokk si kenn yi nga xamante ne équipe la boo xamante ne gis nga fi ñu ne yoon bi li muy rëy rëy rëy rëy rëy tukki bopp. gis nga tey tukki bopp même tey jamono jii moo am appel vidéo vidéo conférence am te loolu zaaya gis nga ñi yor tenoo yoon moo xam suñu boso Mbacké ma nekk Daaru Muxti moo xam kenn ci nekk Touba moo xam ka nekk Dakar moo xam ka nekk Mbadakhoune si ko ci doon bu bokkee si kenn yi nga xam ñoo war a téye liggéey sëriñ ci jamono jooju ñooñu fu ñu nekk dañuy yëngatu. te bu si kenn yàlla na yéen bu si kenn ñu bawoo keneen da koy remplacé moo tax sëriñ bi doon ñu wax dañu bës nañu tey jii bu demoon sax liggéey bi ñu liggéey si tubaab bu demoon sax duñu dellu si wér loolu lu ñu siy jàngat mooy équipe bu sëriñ bi waa ji moom dafay bokk dañoo ànd ak moom rek ñu koy wax waaye dañu koo wan ñoom ñii dañ see bokk. dara bokk si bokk si sélection Serigne Saliou Serigne Saliou sélection la rek da war a bokk si ñu koy liggéey rek loolu du ay ay ay caaxaan bokk si sélection Serigne Saliou képp du ay caaxaan te ñoom ñi dañoo bokk si ñoom ba tax na moom li ñu wax naan sëriñ bi bu ñu doon formé ay sëriñ moom dafa war a bokk si li nga xam ne ñooy formé ay sëriñ yi ñu ne dafa ay nit ay nit am xam-xam ñoo ay nit am xam Allah